xamantene mom la nek amna lu xew pendant deux ans mu ngi mu ngi mu ngi bi parce que ki nga xamantene mom la affaire bi concerner wana ko fi legui mo créé une affaire dans cette affaire là de sorte que dootuñu waxati ci li fi xew yeb dama ne la Ousmane Sonko moko ko mu xewé ko non benen bi benen bi j'ai entendu. Siré Sy rek nga may rek. j'ai entendu Siré dire que Madiambal Diagne dañ ko bindulo te Madiambal Diagne ki ko bindulo lim wax noonu yëpp il faut xam nga xaru dafa bëri façon euh, Madiambal Diagne au moins xam nañ ne c'est un journaliste journaliste la mais Siré moom qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est xam nga prostitution intellectuelle moo gën a bon ci suñu espace ci suñu espace bi quand tu es un prostitué intellectuel da ngay yaakaar ne bépp intellectuel buy wax wala buy bind dafay mel ni yow ñun xam nañu luy wax loo siré quoi te xam nañu li bëggoon ay jamono yële passé jamono yii passé rek li nga xamante ni bëggoon na ko te mu jaarale woon ko ci man personnellement je le connais il me connaît su ko amoon position bii du ko am donc qu'on arrête ah, qu'on arrête de tirer sur quelqu'un te dara du la ci fekk non non non non parce que parce que dafa yàgg siré si dafa yàgg di di di di jël ay position wala mu muy wax ay lu nga xamante ne maîtriser wu ko xamu ko quand il dit que Madiambal Diagne dañ koo c'est insulter la la la conscience des intellectuels sénégalais parce que Madiambal Diagne quoi qu'on puisse dire c'est un intellectuel. mais fekkee dëgg na ko Madiambal Diagne. non mais Légui, légui, au moins si bu ñu ko joxee citation directe. oui na indi ay preuves de ce qu'il avance mais si récit, na bàyyi yoon bi mu jël quoi na bàyyi yoon bi mu jël. yàgg naa ko observer yàgg ko xool di ko bàyyi personnellement. Hmm. mais su voulez continuer na baye ci yoon bi mu ne quoi parce que amna lu nga xamantene bu joté buñ ko waxé mom dootul wax ci espace public bi parce que tay ci jamono ji dañoo toll fo nga xamantene ñu ñi wara noppi ñoo nekk di wax parce que li ñi dundé buñ waxul buñ leen joxul ne leen wax leen duñu duñu am luñu dundé donc na respecter sénégalais yi quoi. d'accord.